ok kii moo ma Mamouska mon mon nekk Italie qui m'a donné def appel vidéo à ak Doudou bu Adja ok léegi avant Doudou bu Adja kii Amna na boy bu nek ci club house bi bu tuddu Yaya Yaya da ko appel vidéo mu photo ko yi filmer ko diko ko avant Doudou amna ku ku kum ko njëkk def léegi mom chaque jour bo danan la mom musa simi mu sa wane lëfam loxoom lay jël di wokkatu ci pooj yeeg di wokkatu ci ndigg léeg làmb loxoom léegi daal góor ñi ñoo ñàkk fayda di génnee seeni koy loolu amul see da nan ngay nekkee góor xanaa duudu deful dof goo xamante si nii day jël ay koyam di ko génnee ci air bi kii wane na lëf après la gëstu ne wane na lëf ma am ci ay preuve yu leer wane na lëf c'est impossible impossible jigéen ngay wokkatu rek duudu génnee koyam di pacax pacax comme duudu ñàkk fayda wane nga lëf léegi nag Awa Diagne la joodu njëkk a way won ay koyam Awa Diagne léegi après Awa Diagne kii mais kii avant kii avant Doudou Yaya moo njëkk a def appel vidéo ak kii kii capturé koy yi yónnee ko Doudou bu séeri Adja plein Ramadan la ko def weeru koor durante Ramadan plein Ramadan la woo booy bi la woo booy bi appel vidéo laa ngi dégg won ko koy bi yaa ngi dégg booy bi nee na wanewul dara mais day duul yaa ngi dégg ba mu ko wanee koy bi booy bi capturé ko yónnee ko benn xaritam bu tudd Dior Fall léegi vidéo bi nag entre Dior Fall moo ko amoon kii may wax ak yow ak Assou Fall ñoom rekk amoon vidéo bi keneen amu ko woon premier jour ba ma ko yëgee dama leen dawoo ci club house bi ma daal di régler situation bi woo duudu duudu yëg ci kaw wax Sénégal yi di dégg léegi dafa am nag comme que nag man dem naa ba tey vidéo bi ñu koy basar basaree ba quelque ci Sénégalais yi gis ko yoon la ma génn leeral nii la affaire bi demee ndaw si moom moo ko dem yónnee ko benn xaritam bu tudd joor joor ak duudu nag xam nga lan moo leen métti yéen ñaar maanaam duudu moom nee ci biir waxam lépp joor la parce que joor dafa nobon duudu te dudu nobu ko mais contraire bi la duudu moom moo doon doxaan joor duudu moom moo doon doxaan joor joor Fall la doon doxaan joor nanguwul après muy génn ak mamuska nee na nag ñaar dañ doon génn benen situation dafa am en même temps ci Doudou Seri Adja amna na benn gel bu dëkk Bologna bu tuddou Valérie Doudou dako wo en même temps neko soxna si naga def mu ne ko maa si jàmm ko ah direct direct Instagram lañ doon def man defee direct ba bari Doudou dar koy jël ci souf ñu dem waxtaan ñom ñaar def appel vidéo Doudou nan ko ay man nga jog wan ma sa tadi loy yow loy bari gersa lutax ngay def li xale bu jigen bi dànn ko man nekul ne don artiste rek wala nga way walangga wala nga don kenen rek dama wara jog wala samay taat xale bu jigen bi numu di doxantu dem ci côté waj bi ak bamu mu ko dafa fekk net net dudu bu seri Adja japp ci koy yi di def ni japp ci koy yi di def nii nee na mënoon na sax te defugo histoire bobu lu reey la jur ba instant bi dudu waron na ci am problème mu bayyi mu sedd tay lama ma contacté Valéria ya mi ngi dëkk feulé Khadija la tuddu mo ngi dëkk Bologna dudu mo defat lolu néna na ba mu génnee ak ni mu ñëwaaté ak ni mi lambé koy yi nan ko li ben la kon dudu da nga fébar dudu bu séri aja war nga xolaat sa bop bu dé jigen ñëpp bo leen woowee da ngay génné sa koy sans simbi silip war nga xolaat sa bop am nga hémorroïde da koy dal manam hémorroïde da daanu war nga xolaat sa bop bu baaxa baaxa baax léegi nak gay xam nga nan la di def mangi ak vidéo mamous ki mangi ak vidéo Doudou ñaari vidéo yep amna na démé tay dañ koy laal ci live bi mais balan go laal ci live bi def li ndak gay balan ñoo laal ci live bi gay balan go tek ci live bi dañu déglu conversation mamous conversation Doudou conversation gel bi nek bolonya parce que adamu Boss day négri dafa bëgg lépp lu muy def rek mu leer boos day Dey Negri dafa bëgg lépp lu muy wax rek mu leer man sama lépp ci preuve laa ko teg nan dem ñu déglu ojo yi bu baax après Doudou dina dugg avant may génne vidéo yi ndax temps laay may muy ko jigéen ki muy ko góor ki ku nekk 10 minutes laa la may temps pour nga dugg ci live bi leeral même ojo dinaa leen tegal ngeen déglu de dinaa leen tegal ngeen déglu may dafa am heure ak temps bu may maye loolu mooy wax ji bu kenn xuloo na jàmm bëri nan dem ci audio yi live bi léegi duudu bu nu weesoo ci problème mu maman maanaam bu jàllee ci problème mu maman mii ak Awa Diagne mi nga won say koy dafa am beneen cas boo xam ne Valérie la la tudd gel bi mi ngi dëkk Bologna déglu leen li gel bi expliqué nan dem foofu après ma taal whatsapp bi may leen 10 minutes ñu ñëw avant vidéo yi waaw incha allah léegi déglu leen Valérie mii nee na duudu da ko def la même soos nan ko déglu nan déglu Valérie déglu leen bu baax. yow tamit nan nan la demee yow ak duudu ba duudu tamit euh, jekk-jekk génne ko te tey wane woo dara. léegi bi ñuy waxtaan si live bi. duudu moom moo doon def live. duudu doon def live. waaw. comprendre muy mel ni yow nga nekk di def live man ma nekk si commentaire yi di ruube ba ba yow nga gis sama tur nga ne ma noo yow live bi bu jeexee faaw ñu waxtaan est-ce que yaa comprendre. léegi live bi jeex mu woo fekk dañoo am suñu benn xarit boo xam ne fii la nekk Italie fii la dëkk Italie comprendre nga. Mm-hmm. si lañ def appel ñu doon woo moom ak sama xarit bi nekkoon doon fecc ak affaire yu mel noonu ma doon reetaan léegi sama xarit bi ne moom maa ngi tëddi parce que suba dama war a voyager donc appel bi ñu des man ak duudu kese est-ce que yaa ngi mm-hmm. léegi duudu ne ma waa doo jóg noo ma noo ma ne ko noonu. est que yaa comprendre. Mm-hmm. ma ne ko maa ngi nii tëdd maa ngi nii si kaw lal bi mu ne ma waa léegi tourneel caméra bi ma xool fekk boobu maa ngi tëdd sangoo sama mbaaj comprendre nga. Mm-hmm. mu ne ma xam nga bu baax ni ko waxuma la nga wan ay mbaaj su fekkee li may wax du dëgg yàlla bu ma yeewu suba comprendre nga. Mm-hmm. léegi mu ne ma dara dara nekku si léegi xam naa comme Sénégal boo xam boo demee ba am yenn importance nit yi jigéen yi boo leen laajee rek dañ lay wan comprendre ma la ma ne ko man du ma genre jigéen boobu bu fekkee da ngay xaar pour man ma wan na dara xamal ni ko du gis dara. dafay nañ comprendre. waaw fekk boo solu ma woon sax yére boo xam ne di nga mën a ne kii li mu sol nii sax di nga gis lii ba tax affaire bi mun la excité wala affaire yu mel noonu wallaahi damaa muuru woon. Mm. billaahi comprendre léegi mu muy wax ma ne ko fii instant moom sama tànk dafa weex bàyyi noonu. munuma sama tànk la gën a weex après si la simmi tubéyam moom Doudou simmi tubéyam billaahi mu simmi tubéyam comprendre nga après si lañ nekk di waxtaan mu ne ma vase yi ak affaire yu mel noonu lan moo tax ngay rus dugg na fii génn na fee ma ne ko noonu man duma genre boobu xaw ma yow lan lañ la est-ce que yaa ngi mm. ni may waxee noonu moom muy reetaan tourné caméra bi comme vidéo bi nu mu demee nii tourné caméra bi fekk mu ngi foo ak affaire am wallaahi. léegi boo ko gisee capturé woo ko waay. billaahi capturé wu ma ko sax maa ngi maa ngi sax ak audio bi may bi may woo sama mag te li ma lay wax nii nekkul dama ko inventé parce que audio yi ma yónnee sama mag date bi sax xëy na mu ngi si bi ma koy wax rama lii yëpp xewul billaahi moo wax ko sama xarit bi nday ma ko njëkk yónnee bu mu gisee kaa man gisuma woon kaar moomu ko njëkk yónnee mu ne duudu daa ni am na ku ko wili bande. comprendre nga. ok mu ne ma yow nag yaa ñàkk fay loolu ñëpp loolu lañ ma wax. waaw mais yow kay dafa preuve mais yow amoo preuve quoi yoroo vidéo. non yoruma vidéo moom. waaw ah, mais def na ko daal. mais après bi loolu xewee si la benn xarit mooy ki ñuy joué avenir baaba si la ko si la ma woo ne ma booy Alvin tegal na ma lii lii duudu def. kooku dafa war a xam ni que tey am na lu mu doon demee man mënoon naa ko filmer di ko dugal si internet bi est-ce que yaa ngi comprendre mais ma ne ko man sama xel dépassé na foofu. Hmm. yow foo dëkk yow si Italie. non man maa ngi a ah moom mos nañ bokk groupe. ah Bologne Valérie mooy sa tur wala Khadija. Valérie laa tudd mais dama tuub bi ma si laa tudd Khadija moo tax léegi Khadija li may wax. njaago nga woon. <laughs> du ma njaago lébu laa de. <laughs>

léegi benn jour ñu nekk ci private bokkuñ ma private maa ngi moom maa ngi ba nekk ci private maa ngi ko yow deux mètres deux nga man damaa bëgg góor bu njool affaire yooyu noonu mu ne ma boo xumbal sama tubéy ma ne ko lan mooy boo xumbal sama mu ne ma waa en tout cas daal boo xumbal sama tubéy bi yaa ko yow lan wax nii affaire yooyu noonu léegi après mu ne ma nii waaw maa ngi woo léegi su ma woowee bu ma waxaat li ma waxoon keroog naan ma ay ay sa affaire ñàkk fayday man dox ma ci ma wax bu ma waxate loolu fay fa xale na yam d' accord ma xool mu bët lay joué yow daal mu woo ma mu woo ma commencé ma woon affaire yi yaa ngi comprendre bu ma woo commencé woon affaire yi moom moom gisuma de moom ba léegi gisuma moom moom ba léegi gisuma mu commencé ma woon affaire yi muy des di dëkk di masturbé d di masturbé wu di masturbé o yaa ngi comprendre waaw gel bi mooy wax après dinaa teg duudu voilà duudu léegi déglu ma duudu moom problème bi dafa gudd te boobaa ñoom joon dañ ciy bokk ak Tassou Fall ak Awa Diagne xam nga Awa Diagne Awa Diagne mooy euh, beneen gel moom da nga doon bokkaale moom rum non soxlawu mu ko yow rek laa bëgg nga wax ay Awa Diagne moom sama yoon ñëwu ci non dama ne ba xam xam nga leen laa la wax ba xam xam nga leen waaw dafa mel ne de <laughs> loolu laa la wax dégguma yow li ngay wax yow dina leer dia dina leer. nii la doon def dina leer déglu leen ko bu baax rek gel bi après ma tegal leen duudu déglu leen ko bu baax rek. Ah, waaw nga léegi euh, léegi ni euh, nga wax de waaw ñu ne que moom dafay woote di wane bagage bi genre yooyu noonu. ngeen comprendre. waaw ma leen ah bon ñu ne ma waaw ma leen non. ak ñu expliqué. aw loolu Dior wala Awa. dégg nga ñu duuru doxaan yëpp di ko posé ay question yoo xamante ni c'est malsain si joor nee naa ko ba xam joor mos def lii daa aw tey tey asfaal man ko joor la mu dem di ko xam joor mos na def loolu genre yooyu léegi nag ñoom ñu ne que ci que am que waa góor ci dafay ñu woo di wane seen ci affaire am yi te xamu sax premier jour mu leen doxaan jour la lay woo di la def say affaire affaire No, no, no no. abbaaya weeru koor gën a ci biir koor bi de léegi ma ne ko man de sama sama loxo day xasal xolal ma def nii nii laa def xoolal téléphone bi xoolal vidéo bi. gisuma la noo def. nii donc ma def nii sama loxo ma ne damay woqat. ma ne maa ngi woqat su ma su ma nee damay woqatoo xam nga téléphone bi fii ci fii nii da ngay gis sama xool yi. Mm. yaa ngi comprendre mm. léegi man damay jotee mu ne naa wala naa sama papa yàlla ma safara jël àddiya parce que tey naa wax ak wéeru. ok léegi yow capture yi foo ko yóbbee kon. mais yow wane woo dara. wax ak moom barke alxuraan wane wu moo tax sànq gis nga gis nga ku ne xoolal sama mag sax mu may message Adamo parce damay ne Adamo lan lay wax ci yow lii wax nii ku nekk ak léegi wane na wala wanewul après dina leer ci live bi bala ñoo coupé léegi léegi nii fii moom lépp fi lay leeral live bu Adamo amul ma dem ak te ñëw nan ñëw ci Duudu nan déglu conversation Duudu. duudu nan ñëw ci duudu. du ma la ko def laa la wax. xanaa loolu bu nekk. mais tey barki Serigne Babacar si du ma wane sa vidéo dama la dama la woo expliqué la ni mu demee pour kenn du la njëkkantu. Awa a ba nga ko wanee dafa dem wax ko ñoom joor ñoom joor tantal la pièce nga dal ci pièce bi noon la affaire bi demee pour ma wax la waaw. ak ma suuf su man lay ak ma suuf man lay bu dee man maman wanu yàlla bu ma na nag wanu la. nee na ma xoolal duudu rek moo doon way rek ma capturé ko mais warula woon a capturé wax naa ko di ko yónnee ay joor wax naa ko ko nee ko def nga erreur barke Serigne Babacar billahi wax naa ko. sama bàmmeelu ak sama nga xam ne moom. wax naa ko de ne mën naa ko Serigne Babacar si fii la nekk woo ma deux minutes di wax. man dama la bëgg wax comme yow comme danga ne sama xarit nga yow sama xarit man du ma la yóbbu fenn ci àdduna bi sama waay nga ma woola man vidéo bi intéressé wu ma man ak yow ñoo démb la du tey ba ngay dugg sama live du tey. li ma lay wax nii. waaw waxuma la ko pour tey jii wax bi di demaat feneen quoi mais tey dama la jàppee xarit quoi sama frère nga xam nga. barke Serigne Babacar si sama xarit moo tax ma woola maa la bind ne la wooma waaw. dégg nga ma dama la ko pour tey ñu ñu ñu waxtaan quoi instant dañuy waxtaan man waxuma loo xam ne tey jii bu ñu taxawoon fu am mille nit bu génnee sama vidéo man du ma mës a génnee lu ma am ci moom. tu vois parce que tey jii tey jii am na loo xam ne doo ci topp nit tey jii moom bu koy def peut être bu mu koy def moom xamul woon ne lii yëpp mën na yegg fii yéen xam nga te man damay jàpp ni moom xale la rek parce moom sama gel la woon nekkul parce que dañ doon woowante nii rek moom sama gel la woon nee na daal Awa Diagne moo ñëw fen leen ko léegi Awa Diagne ba mu ko waxee joor ak asufal daan ne duudu day wane wane kat la léegi tànnal ko pièce après léegi mu lay woo nee na nee na nag dafa jël loxoom wokk ko ci côté pooj bi barki alxuraan karim di tara ma ñàkk sama ndey billaay man du ma fen loolu la fi wax. waaw sama bàmmeelu maam laa la man taalibe Cheikh la barki Serigne gëm naa la gëm naa la ñoom ñëpp loo wax ci ñoom ay cagalan loo wax dëgg la. barki Serigne Babacar Si maam la. cagala de. cagala de. yow lii balaa nga may woo di ma ko wax man yëg naa ko mais tey jii man dama la ko bëgg wax man dama doon dugg si club house bi. non non yow tudd ñu la fa de moom rek lañ fa doon tudd. Famara. yow sa tur génnul de yow sa tur appelé la ba ma woowee moo ma doon expliqué.